état d'urgence ak couvre-feu yóbbu leen dugg ci ay jafe-jafe yu métte métti ñoom chauffeur yi ak transporteur yi nekk ci dëkku bu sell bi di Touba ñenn ci ñoom sax dañu taxaw ci tali bi yore seeni permis di sàkku ndimbal doonte ñu ngi wax ne yalwaanunu li ñuy def kay weesuwul tàllal seen loxo ñi nga xam ne dañu yore ay daamar ni ñoom ñu jox leen nu nu mën a yóbbu ci seeni kër. ndax tey ñun la ak suñu digganteeg sëfoor yi nga xamante ne nii ñoom ñoo dawal fi mu te ñun dawaluñ te mënuñoo sàcc mënuñoo fen looloo waral ñu taxaw fii télé bi di laaj li nga xamante moom lañ seex ak suñu moroom yi sëfoor yi muy diggante wàllum oto ak ak sëfoor oto gannaaw oto dafay yaatu te gannaaw oto yaatu na yaatu waaye xamante ne nii tey jii ku ne xaj na ci ndax nit a ngi lekk sax koo xamante du sëfoor sax day ñëw jël ci wërsëgam dem yoonam kon rawatina ñun sëfoor yi kaa bu mel nii am na mënuñoo dem mënuñoo dégg xamuñ fu ñu koy jooytoo a ah, nii rek lañ mën a def taxaw daw jëm ci suñu mbokki sëfoor yi laaj leen li nga xamante ni moom la ñu seq ak ñoom muy carte chauffeur ñun laaj carte chauffeur pour loon am waaw ndax dañoo sonn liggéeyuñ mooy loolu la moo tax ñu koy laaj ñun ay chauffeur lan da dawalul moo tax ñu koy laaj suñ kër yi koor daan ñu fay jënd suukar di ko yóbbu moo tax ñu taxaw fii lu nu am jënd ko suukar yóbbu waaw moo tax chaque jour bu ñu xëyee bàyyi yëpp ñëw fii di laaj rek muñu rek yàlla baax na fii daal xam na lu nekk rek li ñoo ko daax moo tax waaw ñu toog rek di déglu rek ba lu ñu wax ñun garaaw ñu def ñun mom ci walma auto ci la yëngu ko yaa deug ta auto ya do ma wessu vingt jours a ngi dawnu te mu noo toog yuru benn mo don taxaw fi man bañ ko man may president apprenti yi bañ ko man lañ ko fal president apprenti billahi billaay waaw ñepp fo taw ni man laa rek la wax fo dem Touba Mbacké man laa ngay wax mo don taxaw fi di laaj waaw lu am yóbbu suñu kër mo taxaw rek nu taxaw fi mais sa ci nu fënu nu yalwanu nu nit suñu mbokk suñu mbokk rek lañ taxaw du du leen laaj ñu ñu jox amna na ñoo xam ne fay ñëwoon magal ci bëgg ñibi te timin mën ñibi xam nga loolu lépp nag ak nu mën doon nag nu bàyyi oto yi daw bu koor gi jàll sax ak nu mu am moins cher nu bàyyi leen xam nu taxawaat quoi man noonu laa gisoo na bàyyi niñ dem julli ji seen kër yi quoi ndax am ñoo xam ne fa ñëw seen kër xam nga ñëw fi mun noo dellu waaw te xam nga jagaraay sax ay vingt-cinq mille la ngay fay xam nga benn client jëm kaw la du fay ay vingt-cinq mille te loolu jarul noonu war a bàyyi oto yi daw sonn rek ak jaaxle waaw waaw arrêté suñu liggéey mënutuñu am benn dërëm war nañu taxaw suñu télé bi daal am lu ñu yóbbu suñu waa kër dañuy taxaw si télé bi suñu bokk sévère suñu ñëwee ñu xam ñu tàllale suñuy permis suñu mën a jox jox suñu ñu ñibbi suñuy kër moo tene sàcc nag métti na lool kay moom métti na lool dimniñ fi ay ay ay ay social ay dañuy jox ay saaku ceeb ak yooyu yëpp waaye yëpp gisuñu si dara ay wax kese la waaye Touba dem sa kanam moom jërëjëf moom di laaj suñu wërsëg woo xam ne suñu xarit sabóor yi ñu seqal ci oto mais du leneen luñ fiy def loo xam ne day ñaaw wala leneen suñ sañoon lii suba suba mu jeex ñu nekkaat ci leneen liñ nekkoon di liggéey di teral suñu waaju jafe-jafe di di ñëw fii toog waxtaan bi ci yàgg ñu jël suñ ci dem suñ kër toog mais amul leneen luñ ciy dox loo xam ne waruñu ko cee dox liñ santaane ñu ciy joxe kay am na ñoo xam ne bala ñuy wax sax ñu yëkkati jox ñu loolu lu waay lu waay wax sa bop lu waay defit sa bopp ndaxte képp kuy wax it na nga sa diggante xam ne ëllëg lu waaye waxoon fi da nga ko waxaat fañ léegi nag doomu aadama yi moom bu ñu la séenee nga nekk ci benn mbir mënoo sàcc mënoo fen a ah, dañ naan da ngay màjjal wala dañ naan leneen te mbir mi dafa doon loo xamante ne nii bañ a tooñ ak bañ a jël alali jàmbur ak bañ a def naka sudul noona looloo waral ñu jël suñuy permis jël suñuy diplôme yi nii ñu yor nii taxaw ci tali bi di ko laaj suñu mbokki chauffeur yi carnet bi ñu séq ak moom képp ku dem service de mine nag wala nga yàgg dawal war ngaa xam carnet chauffeur ba Ndakaaru Njaay xam nañ ko adduna monde entier foo dem xam nañ carnet chauffeur kon ñun yalwaanuñ ñun suñu mbokk chauffeur la ñuy dagaal li ñu moom suñu diggante ak ñoom ñu jox ñu ko. ñun ay gawar lan ñun nitu oto lan duñ ñàkk parce que Serigne Touba duñ ñàkk nitu oto lan fi lañuy taxaw du laaj luñ am ñu joxe luñ am luñ laaj ñu jox nu lu def suñu poche yi mais yalwaanuñ suñu mbokk dong ñu jox suñu mbokk chauffeur dañoo xam taxaw fare na ba sedd yëkkati ñaari junni wala junni wala juróomi téeméer wala ñeenti téeméer wala téeméer jox nu wax dëgg yàlla moom sonn rek sonn rek ndax moom oto dëmut ñun oto ñun ba oto dumut oto dikku tamit dañu sonn waaw jafe-jafe yi moom wax dëgg yàlla moom kenn mënu ko wax ah bu leen neexe ñu ne dañuy yalwaan bu dee ñoom noonu lañ ko gisee ñun dañuy yalwaan garaawul bu dee ñoom noonu lañ ko gisee garaawul mais ñun daal la ñoo taxaw si télé bi di am lu na am nag yóbbu ko kër yi bokk koog suñu waa kër yi waaw ndax suñu liggéey bépp taxaw na suñu soxla yi nañ ko daan faje fajuñu ko waaw yalwaan man yalwaan yalwaanu dañuy laaj ñi nga xam ne dañoo yéene di ñu jox rek mais yalwaanu. jafe-jafe yooyu ñuy dund moo waraloon ñenn ci chauffeurs yi ak transporteurs yi soroon seen dàll dem seeti IDICAM mi nga xam ne moo jiite regroupement des transporteurs et chauffeurs du Touba doon sàkku ci moom mu génne 15 millions 700 yi nga xam ne moo nekk ci kees gi séddale leen ko ngir nu mën a faj seeni soxla waaye ay coow yu métti métti ñoo ci juddu am sax ku génne ab pistolet. Mor a Gueye moom bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon ñaxtu dañu toj boppam. Irika moo yabal ay gone ñuy laaj suñu xaalis 15 millions 700 moo yabal gone ñu duñu dóor ba xaañ ñu. man la Mor Talla Gueye maa demoon candidat bi nga maa demee moom. nekk si opposition bi. Hmm. am plein droit mbooloo mi sax seen xaalis ñu koy laaj mu def lii. waaw waaw dañoo ñun xeexu xuloo xeexu yóbbuwuñu xuloo yóbbuwuñu. dañoo dem di waxtaan ak moom sérieusement. waaw mu yabal ay gone ñu yor ay yat ak i jaas ak i fetal di agresser nit ñi di leen dóor. ba toj sa xeexoo xiiroo ak ŋaayoo boobu doxoon seen diggante ñoom chauffeur yi ak transporteur yi tax na kon na seen kuréel gi xaj na ñaar jamono ji sax ñenn ñu ngi police jot a ay plainte wara dem tribunal ngir nu àtte leen